productive hmm? maanaam luy jariñ lu ñuy jariñ la wala lu ñuy xañ xam nga bien sûr du ñu njariñ bu bari kon bu ñu leen jàppee justice la ñun dañoo woote li ñuy wax séparation de pouvoir comme séparation de pouvoir am na suñu yoon ci lu ñuy jàppee parce que bu doon séparation de pouvoir amul yi ku kuñ bëgg a jàpp dañuy taxaw ne buñ ko jàpp léegi nag ñi ñu jàpp ñëpp ñi ñu jàppoon ñëpp est-ce que am nga kenn koo gis ñu jalgati ak xam ak yelleefam mm-hmm. est-ce que loolu am na ci xam nga ne amu ci waaw mm-hmm. ah, léegi kon fan la problème bi nekk xam nga bu Bougane bi génnee def point de presse ku ne gis na kàddu yoo xam te ne ko teg ko ci ci kaw Ousmane Sonko mais pourquoi aussi vouloir toujours ñu jàpp ne li nga xam ne moom la yoon di def euh, loxo premier ministre mu ci biir quand même impression boobu nit ñi am lan moo ko waral. waaw ah, léegi moom ci biir kàddu. Mm-hmm. jéggi na président Diomaye. tëb na ministre de la justice. Mhm. tëb na commissaire tëb procureur. Mhm. léegi lan mooy problème bi problème bi kon moom. loolu lay lakkee problème bi. Mhm. ci Bougane la nekk mais nekkul ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko talu bu fekkee ne dafa am lenn lu Ousmane Sonko def luy tax mu wax ak Bougane wala moom li muy waxee ci moom Sonko wax ko bu boobaa nga mënoon ne Sonko la. xam nga dafa am loo xam ne man dama jàpp ne daf nit ñi dañ ci war a sant yàlla. mooy au moins ñu ngi nekk ci état de droit même boo nee ma. dañoo dellu ginnaaw wala pompiteer bu tàng lan moo tax mu doon pompiteer bu tàng mooy parce que ay kilifa yi buggaan lim ay kilifa diine wala nangam nangam léegi loolu ñu ci lan la ñuy yóbbu mooy kon ñi ñu yore ñi ngi déglu waa réew mi ci réew mi est-ce que dañuy jël topp jaay doole wala dañoo xam ne askan wi rek am doole yaakaar na le contraire amul maanaam du jëluñu ne manaam tey ñoom ñoo war a tege nit ñi li ñu war a jaay doole bu askan wi feeñoo wane seen gis-gis ci loolu bu dee yow loolu nga jàpp mooy kon la ñu ñàkkoon ci Macky Sall am nañ ko ci ñoom mooy ñu mën a déggal kilifa yi seen une bonne léegi nag li factuel nga xam ne moo am mooy séparation de pouvoir moo am mooy ministre de la justice bi ñu teg yebuñ ko yàpp bu tax président Diomaye naan ko defal ma tappale yi mu di ko def waaw bu la nit boo falee nit mu tabal la ay nit yu am fulla am jom ba kenn du leen def loo boo bëggoon jaay doole mënoo compter ci moom loolu nag war nga koo sante ñi nga xam ne ñoo ñoom nga fal ki nga xam ne moom nga fal war nga ko fal waaye biñ tabbee ba pare tabb ba ñu tabb war nga cee sant jaajëfal premier ministre tamit tànk day tàlli wala mu banku soit ñu nangu ne ci état de droit lañ nekk ñu xam ne changement am na hmm. jub jubal jubanti moo am d'accord sa wolof ci ci ci loolu gis nañ sûrement wala daaw da bala ngi ci ñëw mu di bu ñeel li nga xam ne moo di élection législative yi démb dégg nañ ma jambal à travers euh, benn poste bu mu def moom sax déjà dañ ko tere woon mu génn réew moom nag nee na dina voyage waat démb je ne sais pas ba xam mujjee naa dem wala déet mais démb ci ngoon ay 17 euh, heures gis nañ mu ni dina génnaat réew mi euh, ce Euh, après moo xaar ni moom président Macky Sall euh, le 10 incha allah dina commencé dina euh, commencé li nga xam ne moo di campagne pour élection législative yi ndax jàpp nga ni président dina teg tànkam ci réew mi ak li nga xam ne lépp ñu ngi koy tuumal ci ay crime économique ko yoo xam ne askan wi jàpp naa ni jafe-jafe yu ndugg ak tooxi doona moom moo leen ko teg. waaw <laughs> xam nga ñaar ngay wax bu fekkee ne ma jàmbal war a voyage lu téeku mooy képp koo xam ne jàpp nañ ne laale nga ci alalu réew mi. maa ngi dégg ku mel ni Badara Gadiaga ba tey muy wax naan ma jàmbal nga xam ne mas ta jiite naa nga loolu mooy problème mu Sénégal ñoo xam ne mosuñu jiite liggéey bi leen may mayu leen ñu nekk millionnaire. ok waxantuma laa ñuy yori milliards. xool mhm. ci ma jëmbal dalay wóor ne immeuble am ba ca xeeru euh, monument de la renaissance pas très loin dafa cëpp dalay wóor ne ak ay tappale képp ku fa a yóbbu tappale yooyu nag seen lay doon ku la ne woon Mame Mbaye Niang dana am lien ak Abdoulaye Sylla ci montant wu euh, un million cinq cent mille euros dalay jaaxal te ñu ngi si si saisir notaire noonu mu mel nag ñu mën a jël koo xam ne directeur loolu woon wala ministre par mesure conservatoire mesure conservatoire yooyu noonu la mën a concerné Madiambal bu mu ñu sonal léegi nag li concerné Macky man damaa bëgg fi ne ni bëggumaa wax luy tax Macky Sall di tiit ndax man dama ko bëgg mu ñëw campagne waaw ah, loolu c'est une bonne mais wax mais Macky Sall boobu campagne ci tamit ak Sénégal ni mu ni mu ni mu émotionnel est-ce que tamit du du am benn poids bu mu fa hmm? bu campagne. Hmm? ak ne xam na Sénégal émotion bi nga xam ni moo moo nekk ci moom est-ce que tamit ça dérange pas quelque part. émotion day soit nga am lu bégal. Hmm. ba nga kontaan loolu manifester ko. wala nga am lu la naqari lool sa xol dagg. te loolu fàtt dafay xaj. kon bu Macky Sall amee émotion boobu fi muy gën a jëm mooy aw naqar wu wu wane ndax liñ fi teg mi ngi fiy tege xam nga dafa am benn euh, société bu ñuy wax suicide suicide dafa wane ne maanaam ci wàllu xaalis CFA mille trent six milliards ci diggante 2013 ak 2022 Sénégal jëlee nañ ko fi loolu ñaata la waroon a doon ci xaalis presque 2000 milliards lu mu wane li nga xam ne moom la ñu jël jàllale ko ci mu jaar Mali jaar Amérique dem teeree ji Suisse amaatoon na beneen société boo xam ne li ñu jaay Émirats arabes unis Sénégal te te te feeñu ci ITIA bi Macky Sall doon wax loolu nekk na deux mille six cent quatre vingt kilos d'or ci diggante bi am boo xam ne mille trois cent milliards de dollars mille trois cent milliards de dollars diggante deux mille deux ba deux mille vingt deux yooyu yëpp muy wurus woo xam ne pour ci Sénégal la kan moo def tappale yooyu c'est Macky Sall te li ñu ci xam nii ma xam ko di ko wax li ci des nga xam ne mi ngi nekk ci lu ñuy togg ba nga xam ne buñ noppee tegalaat ko askan wi du jeex jël seen ay banque yoo xam ne ñoom la ñuy privilégié muy doon yi fi tappale muy BDK ak ay Coris banque liggéey boobu sax danañ ci ñëw parce que ñoom lu ñuy wax dañuy bëgg a joxañ baaraam kim doon man du taxaw fii naan journaliste yi wala ma naan sëriñ si wala nanga booy xool chaque fois damay nommé kim doon kooku bu ko naqaree buy dem ci yoon mu yóbbu ma ci yoon parce que man dama gëm ne yegg nañ foo xam ne taxaw di layaam layaam yi li ñuy wax dañ ko war a ñeme wala ñu bàyyi ko loolu moo ci nekk moo tax yaa a des choses yoo xam ne day des tuuti peut-être samedi bi bi bii di ñëw parce que samedi bii di ñëw dañuy amaat même l'économiste dafa bari lu ñu war a tegaat voilà Omar Diop voilà ah waaw d'accord l'économiste bi yoon dana ñëw tey ji ñi ngi waroon a am honorable député Ahmed Aïdara mais dafa mujj samedi bi dafa bette dèjà xam nga ñun suñu samedi bii dañ ko bëgg def samedi prestige mhm. ay tappale bu ñu mënta am invité de marque maanaan daal maanaan waa déjji comme ni ma koy def fii mhm. ngeen di laaj ñuy jàngat ki mais da lay wóor ne fii mhm. bojo bojo du fi ñëw d'accord fu mu mën a nekk nag muy économiste ci APR ubbi nañ suñuy port mais di jël ay xuusement ñàpp moom di teg fii débat bi <laughs> xam nga dañoo war a jógee léegi ci débat <laughs> awma je n'ai people man wala nangam ñooñu am nañu ko mën a def même fii ci kër gi am na ñoo xam ne buñ bëggee people mën nañoo dem ci ñoom kii nu mu tudd jumbo rek ah. ak <laughs> non non non Bamba ban non non Bamba non Bamba Junior la mais eh. <laughs> a a élevé <laughs> yooyu man yooyu non man ci fay waay takk na ñaari jabar ak ndaw saak yooyu man yooyu waaw mais ñoom kan bamba piba lay def bamba junior la man bamba junior am na ah, dafa am bamba junior xaw ma ko man man waa piba laa xamul <laughs> d'accord a bi nga def bamba kooku laa teg non non man dama am benn soxna keroog da ciy toog bu daal ma ne ko xaw ma diw maa ndax xam nga kii na di ko génne ma ne ko yàlla xam ne ni ngi xaw ma ne non <laughs> mais ni ma fese ci méga yi man li ma xam lenn la rek <laughs> mooy dossier yi nga xam ne li amal Sénégal njariñ mhm. li ma waxuma lay amal njariñ de mais li ma jàpp ne moo gën a amal Sénégal man damaa mujj Sadio Mané duutatul mu neex ma mhm. Balla Gaye daanatul mu sax ma focus rek rek mais ba tey nañ focus ci li nga xam ne moo di reddition des comptes bi sànq gis nañ Birahim Seck njiital forum civil yaakaar naa war nga koo xam hmm. Birahim Seck moom jàpp nañ ko def convenablement waaye tamit ñu euh, li nga xam ne moo di comme li nga xam mais dafa jàpp ni li nga xam ne actuellement moom la ñuy def dina tere pour nga génn territoire du Sénégal ba pare duñ na loolee euh, jàppul ne tegu naa yoon de euh, nga xam ne ñoo di gouvernement bi ndax nee na ñenn ñi nga xamante ne leen daal nañu saisir CEDEAO te loolu mën naa terne li nga xam ne moo di image Sénégal. waaw mais amul nga man kooku dafay bokk ci ñi may respecté. Mm-hmm. parce que wax dëgg yàlla état de droit la mais nag ay mesures conservatoires fépp la am. Mm-hmm. parce que nit ñi nga xam ne tey boo boo xaaree ba ba ba nekkandiku ñu dem seen yoon duñ fi jaaraat. am na ñoo xam ne bu buñ génnee xalaatuñu jaaraat Sénégal bi même buñ lay gëmloo ay naan la fii lañ juddoo wala naan mais xajagu ci boo fi ñëwee jël vingt ans kas fa wala nga jël dix ans sa xaalis bi nga yor kii ko mu ñëw te gaa yi ñoo la gën a xam ne gars yi maanaam nekkuñ di war laa jàpp gis nga bu fekkoon comme Macky Sall la ñëw notifier leen mbir jàpp leen ba pare dama bëri luñ leen taqal xam nga looloo gën a bon. d'accord fii def nañ ko fi Karim Wade maanaam délai bi ñu war ki jeex 6 mois ñu defaat yeneen ak yeneen continuer waat violé ko mais loolu la ñuy bañ mais mesure conservatoire mais yow gawuñ leen seen kër fekkuñ leen ñu nekk seen kër ñu ne leen bu leen jógee fii. réew mi mën a góo leen koo génn lañ leen wax. mais wax dëgg yàlla am nag loolu nit ki war a mën a xam mais su siiral CEDEAO CEDEAO. gars yi que neen amuñu notification. mais CEDEAO sax dafa nekkul maanaam organisme boo xam ne xanaa président Diomaye li ñu war a defaraat réforme CEDEAO pour ñu wóorulee loolu moo ci nekk beneen bi mooy lii nga xam ne moom la ñuy def. muy nu mu tuddati ay mesures conservatoires ak privilège de préalable mhm. loolu la amee France bu France boo boo boo ko xooloon gis ko seen bos mi ngi nii ma xaar moon la ko garde woon naa ko quelque part voilà mi ngi nii voilà mi ngi nii mu ne le privilège le privilège du préalable est un principe de droit consacré par le Conseil d'État donnant à l'administration un pouvoir exorbitant du droit commun mu ne l'accord préalable du juge n'est pas nécessaire pour que une décision administrative soit respectée par ses administrés. Mmh. Okay. kon fi ngay war a dem di ñu koy ñoom yoon yi ay principe la yoo xam ne maanaam xam nga mu ngi mel ni peine de bi mu fi nekk ci Sénégal pourtant appliqué wuñ ko benn yoon lu dul ñaar nit lañ ci mas a mais teewut bi nga fi nekk te pourtant euh, kenn dindiw koon ak yooyu mais yooyu doonut lu nekk yàq seen ay àq man dama bëgg ku mel ni Birahim Seck mm-hmm. Aliou Sané mm-hmm. Thiar mm-hmm. ak ñooñu ñu ak Mouhamed Mboy bu Mbodj bu F24. <laughs> man dama gëm dañu war a respect resté di nekk ay sentinelle parce que ak loo leen mën a waxal <laughs> dañuy woon dañuy continuer di am sama respect. Hmm. parce que ci jamonoy Wade li taxoon di xeex biñ ñëwee Macky Sall gën a yées gën a bon teewul Birahim Seck mi ngi xeex. Hmm. même bu ma àndut moom dama am respect pour moom mais ñu ñàkk jom ñi nga xam ne ay genre Fadel Baro. ak ñeneen tappalekat société civile yi nga xam ne taxaw fii di wax. li ma wax sànq boole naa ak Seydou Gassama. non non boole Seydou Seydou Gassama. baax mm-hmm. koo xam ne même ni mu meloon ci jamonoy Wade nu ko raw la mel ci jamonoy Macky Sall. Mm-hmm. d'ailleurs manifestation bi ñu mujjoon a defee fële place euh, rond point Liberté cinq jóge woon euh, Séddo turu Amnesty ñoom ñoo ko. organisé international voilà ñoom ñoo ko organisé. Mhm. kon respect boobu même bu ma àndut ak ñoom xalaat ci yenn yi dama ñuy mhm. des di am sama respect ku mel ni Thiat Y'en a marre démb dégg naa euh, kii nu mu tëddee Thiat ak Aliou Sané démb dégg naa Imam Dramé di leen jox naan waxu xaalis Imam Dramé na respecté nit ñi sos baaxul. Mhm. ak lu mu nekk nekk sama waay wax dëgg yàlla am nit ñi dafa am ñoo xam ne seen mérite Aliou Sané moo la ëpp jom moo la ëpp fit moo la ëpp fula. xam nañu moment bi nga xamee ne Sonko ñu ngi koy téye di ko barricade këram. Mhm. xandoo fa. Imam Dramé na respecté Aliou Sané Aliou li mu def damaa jàpp ne keroog. Mhm. jaru ko damaa jàpp ne jaru ko ñoragul te loolu boo bëggee bu ëllëg ëllëgee suñ demoon ba walxiyaasu billaa sax laay wax président Diomaye ak doon commencé jalgati. ku mel ni Aliou Sané bu wootee mu am sens. kon mhm. booy woo nit ñi da nga leen woo ci lu am sens. bi nga woowee nit ñi ba pare loo leen di wax. ay jàppe nangam nag mais yow mu ngi ci loi ba naga ni ñu defee justice gis nañ ñi dañ leen war a woo dañ leen woo mais bu buñ leen woo dépp leen ba pare seen chef d'inculpation yi man toog naa fii biñ ma waxee waxu fen dama ne leen fen fen bu saaga même bu la naqaree mais fen bu saaga mhm. mais nag li mu li garaaw mooy nga géej nit ne day fen te fekk fen buñ la woowee ci ci ci justice yaa ko tooñ. Ah nee na délit d'opinion. Euh, mais à six mois de votre règne boo xoolee bu ñu comparé Macky Sall ak yéen Macky Sall à six mois yi commencé woon def li nga xam ne moom ay provocation kii Souleyman kii Souleyman Camara la wax nee na nee na fenn nee na la la wax ñu ñu di kii di le peuple. saaga.